gars yi partagé leen boo leen duggee rek ku dugg partagé euh, te bu leen fàtte aussi abonné ci yeneen page yi di ko gën a dooleel rek parce que loolu dina tax ba plateforme yi yaatu parce que comme ni ma koy waxee nit ñi toujours euh, nee naa leen xeex bi day soog a tàmbali xam nga am na foo xam ne boo fa yeggee am na foo yegg waaye yeggaguloo fa nga bëgg a yegg donc xeex bi pour ñun dafay soog tàmbali mais nag euh, du tee incha allahu rabbi ñu fagaru rek comme niñ leen koy waxee voilà partager leen massivement ñu am waxtaan ak sénégalais yi ñu am waxtaan ak ki nga xam ne mooy Macky Sall voilà donc partager leen massivement ak caaxaan katam yi ko wër tamit loolu tamit naa leen ci indil benn vidéo léegi ndax am na <clears throat> je pense que gis ngeen vidéo buy circuler vidéo yuy circuler du benn. président boo ñu bàyyee dem koo ñu fii wàccal. déglu leen kii déglu leen. Ah. c'est c'est kii. yow yow ah, yaay suñu candidat boo ko bëggee yow ah, boo ko bañee yow ñu ngi sa ginnaaw. di la ñaan ci njekk ak teraanga 2024 ko ñaan te ko nangu. bu dul dara sañ-sañ bi nga xam ne ba tey am nga ko war na mën a tax nga déglu sa njaboot lii nga xam ne moom la ñu bëgg mooy nga defaral ñu ko kon monsieur le président bàyyi xel décision bi ngay jël xam ne l'intérêt supérieur de la nation moo gën a kawee sa parole te l'intérêt supérieur de la nation tey mooy nga toog fii jiite sénégalais préserver sénégalais si li nga xam ne mooy li si biti di gete suñu réew mi bugg a yàq suñu réew mi président ah! a o faña ngoor saaro o na naa rooga dem no kolum o fañin fañ fañ fañ président bu jëree suñu préserver sénégalais yi si li nga xam ne mooy li si di gete suñu réew mi a yàq suñu réew mi président ah! a o faña ngoor dem no kolum o oh, fañin fañ fañ fañ te wàccaacaar 2024 monsieur le président bu jëree suñu baxan yi ñu teg ko ci président woo ref yàlla mbin in sa njaboot a ngi nii yow la ñuy xaar yow la ñuy déglu xalaatal sénégalais yi ñi ne si rajo yi di wax ñi ne si télé yi di wax ñi ne si réseaux sociaux yi di wax nekkul ñooñu ñoom ñooy sénégalais yi balaa ngaa jël benn décision nga xalaat ne sénégalais yi fu ñu toll mënuñu topp keneen yow la ñu topp <laughs> ku xool BRT Mm. xool TER xool mm. stade yi mm. xool ni lépp looy def danga koy def te fa mu gënee fa mu gën a baaxee te loolu laal yàlla barkeel ko kon nag président xalaatuñu nga dem bañu fi booy dem it duñ ko nangu dinañ la jàpp <laughs> tous les quatre cent soixante quinze maires ont signé cette pétition pour dire qu'ils sont prêts à porter votre candidature dans leur localité mbirum élection yi di ñëw coow li bari na coow li bari na ah, d'abord may rafetlu ñi nga xam ne dañu ànd ak man ak bëgg ma toogaati bopp réew mi wane ko ci anam yu bare bare ci région yu bari ci réew mi yëpp ci diaspora bi wone ko ci coalition muy coalition benn bopp yaakaar naa leen gërëm leen pourquoi the da sit there jàppale ci waxtaan ak waa réew mi ngeen ñu mooy li nga xam ne dina tax Sénégal saaraan ëllëg. lu tax muy fen why a grown man lies mu ne ci Sénégal yëpp ak ci diaspora bi. kon sant naa ñooñu gërëm naa leen. waaye nee naa di ñëw ne woon naa mandat deux mille dix neuf nit deuxième et dernier mandat. te loolu laa jël tey moom laay baamtuwaat. voilà nit du fen ñaari fan ci weeru avril deux mille vingt quatre. dina fekk ñu def élection. yal na nekk élection bu. sedd guy bu leer naññ ni ko Sénégal di defee su ko defee Sénégal continuer doxam ci jàmm ak salaam maa ngi bàllu ñëpp ak di sant ñëpp di gërëm ñëpp wa xam nga gars yi je pense que am na loo xam ne ñun ay sénégalais lañu. te am na loo xam ne d'accord nañ ko ak loo xam ne duñ ko nangu euh, benn groupe bandi bu détourné ay milliards mu leer leen ne yéen ñii tey Macky Sall bu wàccee daanaka genn wàll gi quatre vingt pour cent ëpp na genn wàll di ngeen ñàkk kër yi ah di ngeen ñàkk seeni ay milliards di ngeen ñàkk lépp loo xam ne sàcc ngeen ko wala sax amaana ñu bari ci yéen ngeen daw génn réew mi intérêt boobu moo tax yéen ngeen taxaw tey naan waaw ay fañaa ñaañaa wàccaacaa adugg na fi génn fi xam nga Sénégal moom suñu mag ñu baax ñi dañ ko daan wax ñi fi amul place di wax rek ñooy wax ba léegi ñi amul place ci réew mi di wax ñooy wax ndax am na sama benn xarit bu ma woo benn jour mu ne ma tunkara tunkara ma ne ko waaw mu ne lu tax doo leen wax ci yaay Fatou Diagne yaay Fatou Diagne mooy jabaru sëriñ bu boobu doon lëmbalal Aliou Sall ak beneen ministre bi ba jëkkër ji fase ko maanaam ba muy dox di def affaire am yooyu c'est une dame que je connais en 1981 et on est en 2023 donc ñaata at la loolu quarante ñaata quarante nangami at laa ko xam papa ji mu ngi tuddoon Mignane Diagne di nit ku baax papam professeur la woon yaayam tuddoon faatu Mané di Casamançaise yaay ji moo teel a génn àddina xale bi teel të donc li ngeen di gis ci moom nii yëpp ci internet bi comprendre leen ko yaay ji dafa teel a génn àddina Fatou Mané bàyyi koog papaam rek xale bi teel të maanaam loo xalaat ci àdduna rek moom def na ko dund na ko balaa tey di jot boo leen bëggee xam modèlu Adji Sarr exact copie conforme aji Sarr mooy yaay Fatou Diagne boobu ku ma xam la nag quarante et quelque ans quarante deux laa ko xam donc duma ci concentré wu dama koy romb rek mais damay wax sénégalais yi pour seen xol bu mu metti modèle copie conforme Adji Sarr la gis nga Adji Sarr ni mu mel ak séeréeram noonu la yaay Fatou Diagne mel copie conforme jabaru euh, kii la euh, waay waay waay waa ji ñas euh, band bi band bi pa pa pa pa borom wal fajiri Ahmed Khalifa Niass jabaru Ahmed Khalifa Niass la woon na aussi ak Serigne Mboup defe naa temps yi mi ngi sëy caatu Cheikh Béthio bi lay sëyal doomu Cheikh Béthio bu ndaw bi lay sëyal temps yi mais kooku copie conforme Adji Sarr la maanaam ni aji Sarr mel ni Adji Sarr nguute gi Adji Sarr dugal gouvernement senegal bi yaa Fatou Diagne elle est exactement miroir copie miroiru Adji Sarr la moo bëggee xam yaa Fatou Diagne rek demal nga xooli Adji Sarr ak li mu capable nga xool Yaa Fatou Diagne li mu capable c'est les mêmes kooku dama ko xam je la connais quarante deux ans quarante deux ans laa la wax nee naa la papa Mignane jaañ la tuddoon yaayam tudd Fatou Mané dama ko xam Casamance HLM bu di la dëkkoon numéro un man ma dëkk numéro neuf donc bi ñu nekkee xale yu ndaw dañoo xamante dañoo xamante bu baax donc comme li ma leen wax rek copie conforme Adji Sarr bu Macky Sall jël la teg ko ci place ay ñoom Thérèse Faye moom ñoom gisoon ngeen leen fi université. pour ñun doomu sénégalais yi nga xam ne ñun ñoo bëgg Sénégal ñuy attardé wu ci ay tappalekat moom banque islamique moom la ñu joxoon mu lijjanti by the way mu est-ce que nekku fa ba léegi waaye xam naa ne bi may géej banque islamique lañ ko joxoon fenn ci lenn benn buntu xaalis bu mag boo xam ne da doon détourné rek loolu xam naa ci dara man donc. gis nga tourné katu film yooyu ngeen gis ci seen vidéo boobu ñuy tourné film ñooñu duñu ay modèle ci Sénégal film la ñuy tourné milliards yi nga xam ne moom la ñu détourné ci réew mi moom la ñu jàppee Macky sàll noonu di jooy subaak ngoon guddeeg bëccëg ah Macky boo demee ñun nañuy ñuy def Macky boo demee ñun fu ñuy dugg waaw wax nañu dëgg parce que si Macky sàll bu demee ñoom dañuy dugg prison mais problème bi ñu am problème bi ñu am mooy meeru fan meeru Nganthi ah am ngeen problème de waa Nganthi kooku dama ko xam ne ay at yu baree baree baree baree bare je la connais je connais ma dama ko xam asalaamaaleykum ah wasaab wala ma nekk direct hmm, est-ce que ngeen li may wax yaa Fatou Diagne je kone connais quarante deux ans laa ko xam ñeent fukki at ñaar laa ko xam amul kenn ku nekk ci senegal ku ma ko gën a xam dama ko xam comme ni ma xamee sama loxo bii nee naa leen papa ji Mignane Diagne la tuddoon c'était un professeur très digne nag xam nga nit golo yu bari la plupart ci famille yu digne la ñuy golo gololu bii muy def nii yëpp papaam ak yaayam fa ñu ne ci yowmal xiyaam il sont très déçus wala ma ne astafurlah ndax yëguma génn àddina papa yaay ji moom defe naa papa ji tamit wax na ma ko wax na ma temps yële ne génn na àddina mais yaay ji moom xam naa ne génn na àddina bu yàgg mais dafa bëgg góor dafa am feebaru góor yaa Fatou Diagne une maladie d'homme dafa am feebaru góor moom daanaka góoru APR yi ah ñi ko ci xamul bariwul de sëy moom comme ballon bu ñuy jongle la ci moom bu duggee fii bu defee yëfam jéem bu paree génn fale dugg fale def jéye génn fale dugg fale moom yooyu dérangé wu ko dérangé wu ko ça la dérange pas moom yaakaar na ne la ko yàlla jox noonu ci ginnaaw du lu war a nekk benn place toog ci benn sër ànd ak benn góor moom yaakaarewu ko doon donc ne vous en faites pas benn groupe délinquant ngeen gis noonu rek gangster bandi bu génn di wax gis ngeen ko dara dara jomb ko mën naa taxaw ci public public lu mu bari bari bari bari bari awacaaca awacaaca lammiñ bee rëy public lu mu bare bari bari bari amu ci gàcce donte dix milliards de personnes bu ñu taxawoon ni ngeen gis muy comporté woo noon noonu lay comporté woo amul benn gàcce ci yaramam dara sentirul luy ruus sentiru ko parce que déjà ci jigéen bu sëy ñu dajale woon ay maire nii la woon encore ah, ñoom Aliou Sall ak ñoom in seen ñoo daje woon ci benn kër di def benn célébration mu jàpp affaire am yi di ko def nii di ko def nii jëkkër ji def ko gis rek fas si saa si elle était mariée à Serigne Mboup balaa Serigne am Ahmed xalifa ñas te foofa yi fa juddu ak yi ngeen fa dégg mooy loolu yi ngeen dégg noonu mooy loolu ah. mais duma ci sori comme ni ma leen ko waxee dama leen bëgg a wax rek ne groupe bandi boobu ngeen gis ñu wër Macky Sall ils ont détourné beaucoup de deniers publics te du ñoom rek de ñoom ak seeni góor ak seeni jigéen te ñoom ñu bari si surtout côté activiste bi Macky Sall daf leen ñamal ñu commencé tabax am ñoo xam ne ñu commencé am liwaas bu bu stable defe naa même suñu ndaw si tampi yàggul ba mu loué appartement bu bees donc demu Macky Sall bi masiba naaru laay la ci ñoom xamuñu fu ñuy teg seen tànk ils sont déstabilisés donc loolu dama ko bëggoon indi rek pour benn éclairage bu tuuti parce que gis naa doomu aadama yi di ko waral waaw partisan wu Macky yaa ngi jooy kenn jooyalul Macky sàll ñoom ñëpp seeni intérêt la ñuy jooyal mu ngi mel ni xale bu yaayam di tukki jooyul parce que voilà bu yaay ji demee non seulement nammeel bi rek non non non ak intéret bi yaay ji di indaale nampal beeg wala bu dee togg beeg ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp da nga koy xalaataale mais si sinon xam nga xale bu àndee ak ay xaritam rek kontaan. mais boo gisee muy namm yaay ji c'est parce que yaay ji dafay yóbbaale ay intérêt ñoom Macky Sall bu demee imaginel dix ans dix ans boo xam ne doo liggéey da ngay sàcc di tappale di njuuj njaaj di wuruj di waraj di wax lu la neex ci ab réew dix ans